jërë ngeen jëf mbokki internetu DKR 221 dal leen ak jàmm mu nekk mbégte mu am solo comme ni ma ko waxee saa su ànd ak yéen ci lépp lu ñëwal actualité politique bu Sénégal ñu fa yéene faram-fàcce tey beneen ponk bu am solo jëm ci jataay bi fas yéene sekk waxtaan ak ku nga xam ni responsable politique la bu gëm sa bopp bàyyi ko fële ci diwaanu Notto Gouye jamaa nekk ki nga xam ne ñu ngi ko woowee Serigne Alpha Mbengue yàgg amal taxawaay bu am solo ci gëm sa bopp Bougane Gueye Dany tey jii ñu teewal ñu invité ko suñu plateau fa si ceeg ak moom waxtaan bu am solo yaatal ci li nga xam ni mooy gëm sa bopp ni muy doxee liñ dëgmal également ak seeni projet ak également ginnaaw élection yi nga xam ne dëgmal nañ ko laataa ñuy dugg ci ponk bi dañ koy bàyyi mu nuyu askanu Sénégal également ak suñu internaute euh, Serigne Alpha nuyu nañ la ziar la maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar Bachirou mm-hmm. di la ñaanal jàmm mm-hmm. Eh, di ko sàkku aussi ci yow. jërëjëf eh, di ñaan yàlla mi amee jàmm ak wërsëg ak sutura. Mhm. yàlla defal ñu ko. Mhm. ba yàlla may ñu kattan gu ñu fi waxee loo xamante ne bii dina mën a njëriñ réew mi njëriñ mhm. Sénégal. Eh, njëriñ la mouvement gëm sa bopp. ndax tey bu ñu toogee fii c'est grâce am au mouvement gëm sa bopp. bu Bougane Gueye Dany ñu xam ko ci volonté. xam ko ci responsabilité. xam ko ci fulla ak fayda. xam ko ci gëm ak bëgg réewam xam nga teg benn programme boo xamante ne bi mhm. ñun ñëpp war nañ cee mën a jëriñu mhm. pour le développement de ce pays alors yaa ngi jógee ba diwaanu Notto Gouye Diama yoon bi mbaa mbaa méttiwul woon ak yooyu noonu pour ñëw waaw yoon bi méttiwul yoon bi mhm. méttiwul métti na méttiwul xëy na distance rek la ñuy wax <laughs> dëgg la mais quand même euh, teel nañu fee ñëw ci suba teel nañoo jógee Notto ñëw ci suba euh, di sant yàlla rek quoi di sant yàlla parce que Sénégal xëy na problème mu embouteillage la ñu am. Mhm. mais du du dootul instant ñu problème problème yoon. Mhm. alors bu ñu dooree ponk bi gis nañ ka ni gëm sa bopp. daanaka at yi passé mi ngi commencé amal taxawaay bu am solo jëm ci wàllum politique seen leader di Bougane Gueye Dany daanaka ay sorteem jamono ji mel ni sax mi ngi diiru jëm ci li ñu duppee chef de opposition bu Sénégal tey boo doon dikkaat laataa ñu dugg ci waxtaan wi structuration parti bi ñëpp xam nañ kat élection présidentielle demoon ngeen parrainage malheureusement dañ leen a recalé fële ca conseil constitutionnel mu nekk loo xam ne na bu baax a baax seen i militants ak seen leader également tey jii ginnaaw élection yi mi mais yéen seen bopp yéen a ngi waajal leneen tey boo doon taxawaat ci ni ngeen taxawee ginnaaw élection présidentielle yu 24 mars 2024 tey lan la taxawaay bi militants yi engouement bi tout ça wala jàpp nga ne jàpp nit ñaa ngi jàpp wala bàyyi ko dafa am également. non xam nga aussi gëm sa bopp dafa di benn parti boo xamante ni. Mhm. nit ku ci nekk da nga ciy gis sa bopp. Euh, Bougane Gueye dafa teg loo xamante ne. Mhm. nit ku ci nekk ci ñun. Mhm. da nga gis ci sa bopp sa programme boobu. parce que bu fekkente ni euh, moom président Bougane. dafa am bëgg-bëgg am yéene pour defar Sénégal mu am lu wóor loo xamante ne bii woo na ay nawleem kaay leen ñu bokk ko ñu liggéey ci na ñooñu ñi mu nga xamante ne bii yépp woo na leen ku ci nekk nangul ko ko xam nga tey peut-être euh, bu njëkk dañ daan wax ne nañu dem euh, sampi cellule fale nañ dem sampi cellule fale nañ dem sampi dëgg la baax na parce que loolu mooy base politique ñu samp ay cellule mhm. def nañu ko gëm sa bopp def nañ ko mhm. pas de de de communes yoo xamante ne bii taxawal nañu seen i cellules. Hmm. mais tey xam nga programme li li ëpp solo tey. Hmm. mooy nit ñi adhéré. au-delà des cellules. mooy nit ñi adhéré. te mu mouvement gëm sa bopp ku xam taxawaayam tey ci biir réew mi xam nga ne nit ñi adhéré nañu. Hmm. gëm nañu ko. bëgg nañu ko. le seul xëy na dañuy wax ne euh, président Bougane defagul élection. oui musul dem élection. musul dem élection. lan moo tax musul dem élection. c'est parce que n'est pas populaire pourquoi ñëpp xam nañu ne gëm sa bopp tey booy wañ ñi nga xamante ni bii tey war nañ leen jox cër ci réew mi gëm sa bopp dafa ca bokk. Mm-hmm. parce que bu fekkente ni élection locale yi passé mm-hmm. deux cent vingt deux et quelques mille voix. nga am ko. Mm-hmm. am presque dans l'étendue du territoire national dëkk boo dem di nga fa fekk ay conseils euh, municipaux comme des conseils départementaux. nit ñooñu nga ni nit kooku amul. Euh, mënul am parrainage ci biir réew mi. Mhm. mais lan ñi nga xamante ni bii tey jël nañu seen temps jël seen i activités yëpp concentré ko ci moom. Mhm. ba may ko ay conseillers yoo xamante ni bii tey ñoo ngi taxaw di défendre réew mi. Mhm. dans les différentes localités. nga taxaw nga ne nit kooku mënul am mënul am parrainage non ça c'est paradoxal. da nga jàpp ni gàllankoor bi kon du ci moom. ci gàllankoor bi ñun ñëpp xam nañ du ci moom. dafa amoon benn régime bu fi nekk. boo xamante ni bii ñimewul président Bougane Gueye. parce que xam na ne. au plus fin fond du pays. fépp foo xamante ni bii tey doomi Sénégal moo ngi fay yeewoo président Bougane teg na fa tànkam. wax ak moom ci dëgg. xam nga tey boo gisee dañuy wax jub jubal jubanti. oui mais xam nga lu am am na lu ëpp loolu solo. muy dëggu ak dëggal. dëggu. ak dëggal président Bougane dafa dëggu mais aussi dafay dëggal. te loolu moo am solo ci nit. nit nit lépp looy def. Mhm. nam doon loo xamante ni bii da nga koo gëm. gis nañ ci élection bi gis nañ ci élection bi passé mi ngi ko doon wax ci dernière conférence bi nga xam ne fekke woon naa ko sax mu ne am na ay peut ay leader wala ay militants yoo xam ne doon nañ jiite ay kuréel ci Pastef ci ci ci gëm sa bopp bi élection bi ñëwee ñi nga xam dañoo bëgg a dem ne dañuy jàppale Diomaye daf leen wax seen coobare dem leen jàppale ko jox leen ay matukaay sax est loolu yéen bokk ci kuréel gi di woote ëllëg nekk njiitu réew da ngeen koy magnifier ci président moom mi xam nga xam nga dafa ne bii euh, c'est visible quoi. dafa am loo xamante ni c'est visible le mouvement gëm sa bopp boo xoolee parcours am mhm. dafa doon xeex injustice parcours am yëpp dafa doon xeex xeex li ñuy wax injustice mhm. ñu tegoon Ousmane Sonko yoo xamante ni bii moom àndu ci mhm. mu taxaw dans les médias wax boppam xamal ko ne nit kii doomu Sénégal la dafa am cër ci réew ñi dañ ko war a bàyyi mu mu vaquer à ses à ces euh, propositions. Mm-hmm. mais tey bu ñu demee ba xañ doomi réew mi ci loolu. Mm-hmm. moom mu taxaw mu xeex ko du fàtte boppam xeexal Ousmane sonk ba tey fi ñu toll réew mi ñëpp xam nañu ne Bougane ni mu opposé woo Macky Sall amul benn leader politique bu taxaw opposé woo noonu Macky Sall mais dégg nañu lu ne ci moom ak lépp lu mu mën a def dégg nañu lu nekk ci moom mais moom mi nga xamante ni bii moom mooy mbooy ndey bi gi mm-hmm. képp ku xool parcours xam ne. président Ousmane Sonko tey li mu am Bougane def cee contribuer. Hmm. ba tax na bi ñu demee ba egg ci élection yi di waaj a jub. Hmm. dafa déclaré ne dafay def conférence de presse. oui moment mu dégg ni ñoom Ousmane Sonko dañuy def conférence de presse. oui li yoon mooy ñi nga xamante ni bii tey ñoom ñoo nekk ci position pour dem élection. Hmm. tey bu ñu waxee ne am na lu ñu war a wax askan bi. man bu dee man ma toog ah, ma déglu leen ba pare xool fan lañ jëm. parce que sama intention ku seet ku déglu président Bougane ci rencontre euh, euh, euh, conférence de presse am yu weesu. dafay wax ne Pastef la ñu jàpp ne ñoo bokk gis-gis ci réew mi. donc bu fekkente ni Pastef moom la ñu yàq yaakaar ne moom ñoo bokk gis-gis ci réew mi ci li ñuy wax anti système. Mhm. tey bu demee ba ñu ni dañuy def conférence de presse ñu yaakaar ne def ñuy wax lu rëy. ñu ñëw ñu ni ñu waxtaan nañu ak président Macky Sall am na ci lu ñu d'accord ak lu ñu d'accordul bu boobaat da ngay déglu bu baax fi nga xamante ne moom mooy suñu ligne de conduite. Mhm. dañu ni avec Macky Sall nous contre. ak kum mën a doon kon donc. seen seen abstention ngeen bañ a bëggoon gis nañ que élection bi mu ñëwee. gis nañ ma ñëw gis nañ que ñoom Abdourahmane Diouf ñëpp kenn ku ne dem nga wut koo jàppale Mimi Touré tout mais bëggoon. clairement il a dit que deuxième lay xaar loolu moo ko jural li nekk dañu opposition léegi est euh, moom yéen militant yi jàpp c'est une raison lu toll ni bu gëm sa bopp élection présidentielle ci Sénégal même si buñ bokkul ñu dem jàppale koo xam ne ànd ci ndam li tout ça mais ndam li jàll na bokk leen ci buggaan taxaw tey di militer que ni c'est 44 pour cent ay bokk ngeen ci pourquoi loolu. ànd ci ndam li ànd ci ndam li. Hmm. ah. Hmm. fexe ba ndam li am moo ko ëpp solo. mais yéen fexe ba ndam li am parce que. dama ah, dama la ni sànq. Hmm. ci suñu parcours yépp dañoo xeex anti système dañu ni ñun ay anti système ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu yaakaar ne ñun ak ñoom ñoo bokk ADN. ñoom ñu dem ba ñi nga xamante ni bii tey ñun ñoom la ñu soxla ñoom ñu génn ci réew mi. ñu woola waxtaan. mais sa tuba yu comme ni ko président Bougane di waxee sa tuba yu mo sa tuba yu noonu. Hmm. boo ko gisee ci sa xarit xoolaatal bu baax sa toogaay dafay am solo. Hmm. loolu moo tax bi ñu gisantee ak Macky Sall ba ñu ne am na lu ñu d'accord ak lu ñu d'accordul mais mu taxaw mu ni le mouvement gëm sa bopp. Hmm. ma jàpp kenn. du ma wax kenn defal leen hmm. mais man personnellement dama ni képp koo xamante ni bii fa nga nekk am na ku la fa doy nga ànd ci prés euh, élection présidentielle yi àndal ak moom. ça il l'a dit eh. il l'a dit hmm. dem leen ngeen ànd ak ñi nga xamante ni bii yaakaar ngeen ne ci seen gox mën ngeen ànd ak ñoom mais responsable lu gëm sa bopp yépp ci loolu la ñu tënku. Hmm. ñii ànd ak Pastef ñii ànd ak ki leen neex te la quasi totalité de des des responsables de gëm sa bopp presque ñoom Ousmane Sonko la ñu àndal. ok coalition Jomaay la ñu voteel mais ñooñu buñ ko defee ba pare. lan moo tax sénégalais yi ñoom ñu wala wala politiciens yi duma wax sénégalais yi lan moo tax politiciens yi ñu bëgg les politiciens professionnels lan moo tax ñu jàpp ne rek Bougane dafa war a ñëw mu ni man damay ànd ci ndam li fexe ndam li am moo ñu ëppal solo. ànd ci ndam li. mais Bougane fexewul ndam li am ba pare bokku ci ndam li. tey mu taxaw nii. xam nga li daaneel li daaneel Macky Sall tey mu taxaw xam nga du ah. benn fan. du ñaari fan. du ñetti fan. Mhm. du weer. Mhm. du ñaari weer. waaye Pastef a ci gën a taxaw quand même. xam Pastef mu falu. oui moo nekkoon ci taxawaay boo xamante ni bii tey sénégalais yi jàpp nañu ne moom mooy anti système. ok Sénégal jàppoon nañu ne Pastef mooy anti système mais dañu dem ba ci biir ñu gis la mu doon doxee ak nañu doon waxee vraiment mu am soppe ko te aussi nit da nit da doomu aadama lépp looy def na dal sa xel man bu may def mbir dafay dal sama xel bu fekkente ni man gis naa ne waxtaan am na te li ma wóor ba wóor mooy li président Bougane wax hmm. nee na Ousmane Sonko bu nekkoon ci kaso bi sénégalais yi génnee ko ci kaso bi yóbbu ko pale loolu laa gëm loolu moo wóor hmm. mais bu fekkente ni tamit yàkkamti nañu ba ñu naan dañuy toog indi waxtaan wala wala wala yaakaar ne mënul nekk en hmm. ah, kay mën naa ne parce que jomaay le fait que yàlla def mu nekk candidat. Mhm. du hasard. oui buñ ko mënoon téye danañ ko téye. Mhm. mais yàlla def na jàll na. bi mu jàllee ñëpp xam nañu ne tey li nga xamante ne bii ñoo ngi koy incarné. Mhm. ci politique gu Sénégal mooy ñi nga xamante ne bii ñoo ngi xëccu anti système. Diomaye impérativement ñëpp xam nañ ne Diomaye am na buntu pour mu nekk président Sénégal. mais lan la ñuy indi waxtaan jaru ko. nañu am suñu benn taxawaay rek bi ñu amoon bu njëkk ba tey. li wóor ba wóor mooy sénégalais yi ñoom ñooy waaxu dugg ci biir kaso bi génne leen ñoom ñaan ñëpp jox leen réew mi loolu laa gëm. d'accord alors tey seen leader tey gis nañ posture am ci politique bi day attaqué pouvoir bi leen duppee day des impôts ci juuti. parce que gis nañ que ni également li indi jooju mooy Bougane chef d' la dafa am lu ñu duppee seen TV ak lu ñu entreprise boppam tey impôts yu bëree ba dal na ci kawam 2 milliards de francs CFA war a fay ak lu ñu mel tey posture bi mu nuancé ak entreprise bi mu koy politiquer loolu ñëpp gis nañ ko est ce jàpp ngeen que ni c'est une ligne boo xam ne ci la war a continuer pour que ngeen mën a accéder fi ngeen bëgg a jëm tamit. Hmm. bu di wax ci Sénégal ci doxalinu réew mi da ngay ànd ak ñi fi nekk parce que moo gën a yomb ah. moo gën a yomb ànd ak pouvoir bi moo gën a yomb ñu aaral la sa alal <laughs> mais moom lu mu wax. lu wax bu ma doon dem sax jaral Sénégal jaral na ma. dinaa ci ñëw. ah kon tey ñun li ñu war président Bougane Sénégal daf ko ko daf daf koo jaral lu ci nekk. Mhm. kon Sénégal bi nga xamante ni bii ci la nekk. Bougane ci lay wax waxul ci leneen parce que y a des mhm. dafa am ay promesses yoo xamante ni bii dañ ko tegoon ci taabu mhm. ñu ne ñun ñaari weer. Mhm. bu ñu eggee rek incha allah dinañ def différence. d'accord résultat poste. résultat mais tey bu ñu ñëwee. ba egg ci pouvoir bi war a joxe ay résultats. mais commencé def loo xamante ni bii par exemple bokkul ak li nga xamante ni moom lañ ñu dig mais am na droit mu génn. dinaa ñëw alors tey ba ma doon wax dara ci ponk boobu protocole xam nga ci dara parce que Sénégal yi bari dañuy dégg rek mais depuis le 15 mars bi Ousmane Sonko génnee Cap Manuel dem hôtel Azalaï ba léegi am na waxtaan am na ñetti ponk lañ waxtaane jubóo nañu jubóo ba tey daanaka ci ñëpp toppaat wax ba ci seen leader Bougane ba tey yokku ci dara wàññu ci dara est-ce que tey gëm sa bopp xam ngeen lan moo xew diggante président Sall ak mm, Ousmane Sonko xam nga yàgg na fee am oui ah moo taxoon ñu bëgg rupture. waaw protocole yi fi jaar dafa bari. dëgg la te amuñu benn rendement amul ñu benn rendement. dëgg la moo taxoon nag rupture bi ñu doon woote. Hmm. moo taxoon ñu ba xoolal loolu bañ a amati. ok yaa ngi dégg protocole am na wala amul déggeewuma ko ci gémmiñu Bougane ci gémmiñu Ousmane Sonko laa ko déggee. ok ci ko njëkk a waxtaan nañu waaw. waaw waxtaan nañu. Bougane Bougane waxit rek la wax. waaw li Ousmane Sonko wax la moom la buggaan reprendre rek. Hmm. waxtaan nañu am na ci lu ñu d'accord am na ci lu ñu d'accordul man je crois que loolu vraiment du loo xamante ne lu bees la du lu bees c'est que ñoo mën na taw yi benn mbir yëkkati ko ba mu toll buggaan waxul lenn lu lenn loo xamante ne bii tey gisu ko tegu ci bët waxtaan boobu mu wax noonu ñoom wala boo duggee ci euh, réseaux sociaux yi ñëpp wax nañ ko am na ñoo xamante ni bii génn nañu ba wax ay tudd ay turu nit ni ñoom ñoo dox waxtaan yi mais kon donc buggaan waxul dara <laughs> d' accord d' accord waaw loolu tamit mën nañu ko nangu mais mais il waxtaan am na loolu moo tax jàppale wu leen loolu mu téye boppam tout ça mais buñ jugee ci loolu noonu. dikkaat effectivement hmm, buñ jugee ci loolu waxtaan boobu. nga wax noonu. Hmm. moom laa la wax sànq. Hmm. dama la leen sa tubayu noon boo ko gisee ci sab xarit. war ngaa xoolaat sa toogaay. d' accord lépp dina gën a ci li ñu dëgmal mais tey bu dem leen élection présidentielle ñu ngi dëgmal élection législative ala kulli bu leen bëggee am taxawaay bu am solo ci dëkk bi parce que nag wax dëgg yàlla politique bi métti métti actuellement yéen a ngi mëne ay combat mais seen cës laay dëgëragul amu leen benn représentativité ci li nga xam ne moo di assemblée nationale wala ci secteurs yi gën a am solo ci dëkk bi léegi tey boo ñëwoon tey élection ça wala au calme ngeen nekkee. nga parce que parce que gis nañ que ni en réalité gëm sa bopp la seule voix bi nga xam ne ñu ngi ko dégg actuellement c' est Bougane Gueye derrière c' du vide presque tey nan ngeen taxawee. a quelque chose. parce que ñun les responsables au niveau local. Hmm. ñun dañoo jël suñu décision pour ni que suñu leader ni mu taxawee ñu wan nit ñi ni effectivement ni mu taxawee c' est grâce à ñun ñi nekk ci ginnaawam parce que nit aussi boo amul ci doo doo doo dem fen te ñun ñi nekk ci base bi lañu la ñu war a def comme liggéey pour gëm sa bopp ñu mën a xam ne carrément benn benn entité la boo xamante ni bii moo ngi ci base bi il faut ñun ñu génn wax parce que ñun dans nos su ma la joxee suma exemple suma ma dëkk hmm. lu fa xew lu nekk ma dem fa te politique tey Sénégal dañu ne nit ki bu amee ngénte na la gis bu amee dëj na la gis lépp bu amee gàmmu na la gis loolu yëpp ñoo ngi dem te même au delà de ça jafe-jafe yi nga xamante ni bi suñu askan yaa ngi koy dund. Mhm. ñoo ngi dem aussi fekk bokk leen ak jafe-jafe yooyu ànd ak ñoom pour résoudre ces problèmes là. et loolu la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu Bougane Gueye won parce que Bougane Gueye defe naa ne tournée yi mu def ci biir réew mi. Mhm. dem ci askan bi xoom xam seen i jafe-jafe indi programme am. Mhm. tekki won Sénégalais yi lii tax ñoom génn ci seen i jafe-jafe. defe naa ne loolu doy na structuration. organisation parti bi tey nan ngeen koy doxal seen organisation niveau communal et tout ça nan la ay. dans les départements y a des réunions y a des cotisations fonds vous savez mhm. gëm sa bopp gisul ni ay cotisation moo war moo war taxawal. taxawal dara mais politique c'est des fonds quand effectivement ça mais fonds mën nga koo amee neneen nu dul ay cotisation parce que aussi nit ñi dañ leen war a jàppale. Mhm. ñu ñu ñu ñu yoree seen i kër au delà. Mhm. que nga leen di laaj ñoom li nga xamante ne bii ñoom ñoo koy cotiser. di ko delloo tey man jox la exemple yaa ngi dégg ni <laughs> ñi nga xamante ne bii ñoo ngi ci pouvoir bi tey. Mhm. yaa ngi dégg ne ñoom ñoo ngi laaj cotisation mais dañ mhm. ne noo egsi nañu pouvoir bi cotisation amatul. waaw gis nañ ko démb. voilà lu mel noonu amee. Mhm. kon bu laaj. Ah. wanal nit ñi dëgg. waxal nit ñi am cotisation bi gën a am solo mooy lan. mooy la langage de vérité. d'accord wax nit ñi dëgg wax nit ñi ni xoolal man ñëw ma fii pour may leen xaalis. mais dama ñëw fii pour ñu ànd moo ñu wax nan la ñuy nappee ñun ñëpp ñu ànd ci géej gi dem nappi. président Bougane li tax mu mu ma sopp ko lool. dafa taxaw mu ni ma man sa dëkk bii mënuma koo régler yow yaa koy régler dama bëgg fa ñu koy jooyee ñu ànd dem fa. Mhm. pour nga xeex pour régler sa dëkk. loolu laa gëm croire en soi. Mhm. loolu la ñu won wanuñu lenn ni man maa leen di defal nangam maa leen di defal nangam def non non dafa ni damay ànd ak yéen ñu defar réew mi et je pense que man sama gox bi ma nekk. bu fekkee am na ay possibilité pour mën a régler seen i jafe-jafe. ànd ci ak président Bougane mais moo gën fuuf man may toog di jël sama téléphone di woo président Bougane naan ma sama waa dëkk dañoo am problème mu ndox dañoo am problème courant dañoo am problème mu nangam ak nangam mais su ma nekkee ci biir fa ñuy régler loolu je pense que ñoom du ñu am jafe-jafe boobu. législative bi da ngeen di dem wala ngeen di xaaraat. comme pare ngeen pour dem pare nañu pour dem. ci ban fànn ngeen di demee. ci ban fànn lañ demee. ci lañ daan demee. ci nañ nañ daan demee. parce que defe naa élection yi fi jaar yëpp lépp lu ñu laaj ab parti politique wala mouvement bu ñu ko laajee ñu taxaw ci comme niñ ci ware muy parrainage bi mm-hmm. ñu def ci lañ ci war mm-hmm. déposer mm-hmm. temps ba ñu ko war a déposer ña nga xamante ni bii ñoom ñooy dépouiller ñu dépouiller ah mosu leen jàll quand même. ñoo jàll mais lan moo tax ñu jàpp parce que loolu wax naa la ci sànq. oui cette fois ci jàpp ngeen di dem di jàll. yaakaar naa ne bu fekkente ne rupture bi ñu wax am na. Hmm. ñun dañuy dem. kon baax na te li ñuy ñaan mooy rupture am parce que moom lañ doon ñaan moom la Sénégalais yi bëggoon Sénégalais yi dañoo bëgg Bougane dem élection Sénégalais yi dañoo bëgg Bougane taxaw assemblée nationale waxal leen seen soxla Sénégalais yi dañoo bëgg Bougane défendre leen parce que c'est l'homme qu'il faut. Bougane c'est l'homme qu'il tey ci instance de décision yi dina fa def loo xamante ni bii man du ma ni kenn mosu fa kenn mosu ko fee def mais am nañu yaakaar ne li muy wax nii ci rajo yi tey dana ko fa taxaw jëmmal ko. Mm-hmm. loolu tax ñun ñëpp lu mouvement gëm sa bopp ñu gëm ne dañoo war a encore redoubler d'effort encore redoubler d'effort bépp jafe-jafe bu ñu daan am dañoo war a góorgóorlu am bu ko ëpp pour résultat mën a am hmm. parce que résultat bu baax toujours moo ngi ñëw au bout de l'effort hmm. kon donc loolu la ñuy xaar d'accord alors tey alternance am na 24 mars 2024 askanu Sénégal tabu Bassirou Diomaye Diakhar def ko cinquième président bu république bu Sénégal à 54 pour cent li def li ñu wax temps de grâce dafa waroon am bàyyi la ñu liggéey tuuti mais malheureusement amul dale ko ci seen njiit yi Bougane ak ñu mel des attaques matin midi soir li ñu def baaxul euh, Bougane nee na Ousmane Sonko ak Diomaye ñoo waral immigration bu metti bi tout ça yoruñu réew mi ay impôtier lañ tey nan ngeen gisee taxawaayu état bu bees bi wax dëgg yàlla tamit ngaa ñuy bari na jàpp ngeen que ni est-ce que seen leader ni mi demee ci seen kaw war leen bàyyi nga ni ñoom liñ fi nekkee moo baaxul Basirou oui Basirou est-ce jafe-jafe yi muy dund démb. Hmm. ba tey moo ngi koy dund. mais c'est normal parce que trois mois de pouvoir ci cinq ans dara xaju fii. effectivement am na lu ñu def mais nañu wax. mais xam nga am solo tamit am nga problème bi lan la foofu. Hmm. bul gëmloo nit ñi lu mënul nekk. kan moo gëmloo kan lu mënul nekk. xam nga pouvoir bi mu fii ñëw dafa ni. Hmm. résultat yi bu leen ñu may weer <laughs> bu leen ñu may weer dafa ni maa ngi lay fàttali nii Bougane dafa amoon benn organisation bu mu defoon benn confé euh, benn benn rassemblement bu mu defoon Ousmane ko ñëwoon fa. dafa ni hmm. nañu xool nit ñi laaj réew mi bu ñu leen toppee ci discours. Hmm. mais nañu xool seen parcours. Hmm. ku mel ni Bougane Gueye dani nañ ko bàyyi xel. te ñu koy ñaanal li mu bëgg ci réew mi yàlla may ko ko. tey le moo ko waxoon. loolu moo nekk ba tey. Bougane Gueye moomu. mi nga xamante ni bi moo ngi ko doon ñaanal mu am posture bu baax ci biir réew mi buggaan Gueye boobu soppeekoogul ba tey moo fi nekk. ah Bougane kay soppeeku na nag. non non Bougane ñuy contre pouvoir Sonko tey mayu ko dara. déet li nga li mu def noo ko tuddee li mu def nii noo ko tuddee Sonko suñu PM la. oui suñu premier ministre la. absolument ñun ñoo ko fal. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. am benn politique boo xamante ne bii ñun suñu sañoon. Mhm. politique boobu lay doxal. mooy bi mu ñu waxoon ne boobu la bëgg bu ñëwee ci réew mi loolu lay doxal. dëgg la. yaa ngi dégg mm. mais bu ñu demee ba gis contradiction ci doxalin yi li mu doon wax ak li nga xamante ni moom la koy jëf actuellement mu am wuute mm. dañ koy rappeler à l'ordre rek bu Bougane est en train de l'appeler à l'ordre Ousmane Sonko avec la manière avec la manière quand mais avec la manière bien sûr xam nga non non pas virulent pourtant si politiciens yi rek ñooy gis virulence am. ok politiciens yi rek ñooy toog di wax ne Bougane moo ngi attaqué Bougane attaqué wu la. Ah. discours nga ko. bien sûr des mots un peu un peu nit ku ci nekk. Mhm. dafa am benn euh, la façon de faire. la façon de faire c'est très important et la façon de faire. oui Bougane actuellement tey sénégalais yi moom daf leen bëgg a rappeler wax leen ne. Mhm. ñii bi ñu avant ñu fi ñëw lii lañ ñu waxoon lii lañ ñu waxoon lii lañ ñu waxoon. Mhm. mais loolu bu fekkente ne tey am na tuuti waroo. mais Bougane dafa rappeler alors dafa war taxaw mu ni sénégalais yi ah attention. nañu xoolaat suñu position li taxoon ñu fal leen kat lii la lii la lii la lii la lii la en ce moment nit ñi xam exactement nan lañu war a taxawee. ok assemblée nationale bi. dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw léegi. Ah ah. ginnaaw loolu gis nañ Bougane ngaañ yi bari na jëm ci pouvoir bi tey yéen waa gëm soo gisee Diomaye ak Sonko ci dëkk bi décision yi ñu jël ni baykat yi fay nañ leen seen i bor. engrais bi armée lañ ko jox tout ça. xam nga xam nga man àggale. xam nga man jaay mi daanaka premier ministre yi wàññi nañ ko dëkk bi daanaka jamono ji am nag dal malgré l'emploi de jeunes moo nekk premier souci bi nga xam ne actuellement ñëpp ñu ngi koy jooytu peut-être dina ci jël ay matuwaay mësëk tey lan mooy véritable problème seen kuréelu gëm sa bopp seen mouvement ak seen parti politique ba ngeen jël lépp di xalab ka ni baaxul ak nan ngeen gisee. véritablement politique bi nga xam ni. waaw peut-être ma waaw peut-être foofu mën nañ kee mën a rectifier mais nan ngeen gisee politique bi nga xam tey Diomaye mi ngi ko doxal ci dëkk véritable est-ce que jàpp ngeen ci la bonne politique wala jàpp ngeen que ni y a c'est ça que je veux savoir xam nga tey dama la wax sànq ci waxu programme projet oui dañoo jaayi projet way dañoo jaaye de mener actuellement qu'on est en de mettre en place pour ma wax la nag tey ba tey fi ñu toog nii hmm. PSE mooy dox Sénégal <laughs> non dama lay wax xoolal je parle en connaissance de cause je parle en connaissance de cause. ba tey. Hmm. PSE mooy dox. xam nga moo tax. PSE bu Macky Sall. waaw. explique-moi. parce que. Hmm. programme yi nga xamante ne bii. programme yi nga xamante ne bii budget bii passé 2024. Hmm. moo ngi koy déroulé amul benn programme bu ñu ci arrêté gum. Eh, en trois mois c'est possible. amul benn buñ ñu ci arrêté gum. yaa ngi dégg. la fi nekkoon démb. même eurobond yi ñuy wax ne ñoom dañ koy jëli à l'extérieur. dañ ko lépp c'était dans le projet. oui. defuñu fi dara lu bees lépp li ñu fi ñëw dañ ko fa fekk parce que dañoo fekk benn programme boo xamante ni bii c'est déroulé programme boobu ñoo koy déroulé. ok euh, bi bi bi ñu ñëwee. Mhm. bi ñuy wax ne kees bi am na xaalis wala amul xaalis. Mhm. ah. fonds sociaux yi moom Macky Sall ko yóbbu léegi démb rek sa Omar Diagne leeral na ko lépp la jël yóbbu en trois mois. dama la ni dañu ni budget réew mi. liñ ci liñ ci liñ ci génnee gum. moo ngi toll ci je pense ay vingt quatre wala vingt sept pour cent. oui bi ñaata la. budget c'est des prévisions je sais pas actuellement. c'est budget est-ce du ëpp sept mille milliards. oui budget global. budget global. mais nekkul ko ba nga xam dafay nekk dans tout bu ñu nee bu ñu nee vingt sept bu ñu nee vingt sept pour moo ci jàll. am na lu des. ok mais quand même. budget donc ngi tey ñoo ngi ci. huit budget bi huit mois la normalement huit mois la am on est en mois d'août. mais avec des prévisions des prévisions nekk loolu la nit ñi war a xam. parce que budget dafa am ñaari budget dafa am ñaari mbir. mooy lan. budget dafa am recette. oui am dépense. absolument ça c'est yaa ngi dégg. loolu tey ci budget global bi nga xamante ni bii ñoom am nañu ko mënuñoo xëy benn benn fan ñu am ko à cent pour cent. da koy amee par trois mois ngay évaluer li nga am. ngay verser li nga xamante ni bii ñoom war nañu koo jot. di ci dépenser. Mhm. progressivement ba keroog. Mhm. budget bi di di mat. ça c'est mën nga am budget bi mais mën nga ko ñàkk am aussi. mën nga am budget bi à 100 kon mën nañu jàpp ne amuñu ko parce que Ousmane Sonko il a dit actuellement tey dafa bokk ci ñiy wuti xaalis pour budget bi mën. raison pour la elle a dit que nous avons retrouvé un pays en ruine voilà. <laughs> non xam nga ruine dafa rëy. vous dites xam nga ruine. Hmm. ruine. ruiné demal Niger. <laughs> demal dans les pays yi nga xamante ni bii ñoo ngi suñu wet les Mali et autres. Sénégal n'est pas en ruine. Hmm. Sénégal non Sénégal on a un état fort. un état fort li yóbbu régime bi tey ñu nekk au pouvoir c'est parce que on a un état très fort. bu fekkonte ni Sénégal moo ngi en ruine tey. Hmm. kon militaires yi dëkk baa ngi seen loxo. ok kon nañu ñaanal suñu réew jàmm c'est très important aussi. parce que c'est le c'est le PM qui parle. d'accord te moom mooy yore suñu destinée. donc buy wax on peut comprendre un pays qui a des difficultés. Oui. mais ruine. non c' est autre chose. mën leen koo nangu. non ruine c' est autre chose. alors de manière générale de manière globale la politique du gouvernement actuellement. vous approuvez wala vous pensez que c' pas. non man de su ma sañoon. su ma doon waxtaan ak le PM. dama ko naan moyen de discours. moyen de discours. oui. mais les politiques quand même li ñu teg maanaam les actes. les actes. Mhm. yi nga ñoom tegaguñu benn acte laa la wax. ah non non non non. non Alpha Alpha non Serigne Alpha il faut qu'on essaie au moins d'accepter ce qui est la ah, li ñuy jot a def. Ah. li fi nekkoon la ñuy continuer gum. xam nga ba kañ non mais ku wàññi dund. xam nga fay baykat yi. waaw ah courant yi facture yi gis nañ passé bu yi passé xawoon na yokk tuuti. waaw ñoo ngi félicité ñoo ngi félicité loolu. waaw léegi nag. loolu ñoo koy félicité loolu ñoo koy bu baax. mais dañoo bëgg mu gën a mu gën a am taxawaay. c'est dans un processus parce xam nga moo tax. Ah. Euh, ceeb bi ñuy wax ne dafa wàññeeku. war naa mën a gën a wàññeeku. diw bi ñuy wax ne dafa wàññeeku. Hmm. war naa gën a mën a wàññeeku man man man li ma gën a gëm sax. Hmm. du wàññi ko. pour man du wàññi ko xam na moo tax. Hmm. dañoo war a teg ay projet yoo xamante ne bii dina tax dund bi wàññeeku ci suñu biir te duñu génn ci biti lebi pour fay xam nga subvention yi état di def. actuellement pour wàññi dund. Hmm. mais taxul ñu ne dëkk bi day avancé. subvention yi ñuy teg pour ni dañuy wàññi dund bi taxul dëkk bi avancé nañu def loo xamante ni bii ci réew mi. l'agriculture nañ ko valoriser. secteur primaire bi. la formation. des jeunes xale yaa ngi wax liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey mais ana formation bi les jeunes qui am nañu bac bac plus. mais lan mooy seen métier. waaw c'est l'emploi des jeunes maa ngi koy wax peut-être dina ñëw dans trois mois. non xam nga tey nag li ma bëggoon. mooy bi ginnaaw bi ñu defee état des lieux. Mhm. xam ne am na ay manquement pour Sénégal mën a dund. Mhm. nañu bàyyi Sénégal ci jafe-jafe bi mu nekk. ah te ñu génnee lii tax dans deux ans un an nit ñi mën a retrouver wu. man loolu laa gëm. na metti le tout début est difficile. tout début est difficile na metti ci commencement bi. Mhm. mais dans deux ans ñu xam ne vraiment ñi fi nekkoon li ñu promettre am na man foofu lay xaar ñi fi ñi fi nekk tey foofu lay xaar président Diomaye. Mhm. président Diomaye euh, président Bougane yéenewu ko mu daanu. ok parce que xam lan moo tax. Mhm. xam nga koo xamante ni bii li nga yaakaar lu ci bëri moo ngi ci biir réew mi. réew mi bu lakkee sa sa alal lakk. bu lakkee sa kon li ñu war a yéene tey. ñi fi nekk. mooy ñu réussir ci seen projet. d'accord. parce que xam nga am na ñu bëri ñoo xamante ni bi tey bu ñuy wax dañuy wax parce que xëy na dañoo bëggoon am posture politique ñu fal leen yaa ngi dégg mais mu mouvement gëm sa bopp hmm. problème mu fal amuñu ko xam na moo tax hmm. ñoom ñëpp ay liggéeykat lañu d'accord dans les gëm sa bopp boo dem da nga ko fekk muy liggéey muy liggéeyloo aussi d'accord te nit kiy liggéey di liggéeyloo ay nit nga jox ko poste mu liggéey ak nga ñàkk koo jox poste xam nga jox poste da nga koy war a tiit jox jox la poste nga liggéey da nga cee war a tiit. Ah, responsabilité la moom. parce que xam la moo tax. Mhm. alalu réew lañ la dénk. alalu réew bi ñu la dénk. ndëgam sa alal. Mhm. la suñu borom wax ne. danañ la ko laaj. nga wax ko ba ca centime ba gën a tuuti. nan la ci def sàkkantu ak alalu askan wi. d'accord moo tax jamaay woote jub jubal jubbanti alors ba tey sëñ Alpha ñu dem assemblée nationale gis nañ que ni président de la république bind na conseil constitutionnel laaj leen. kañ la war a mën tas assemblée dégg nañ information que ni conseil bi tontu na ko mais la réponse n'est pas nit ñi xamaguñ ko tey jàpp nga ni toll nañ phase boo xam ne xëy naa war naa tas assemblée nationale ak tey élection yi ñu dëgmal nan nga gisee ñu nan nga gisee woy politique yëpp ni ñu ci war a taxawee ngir ko. ñoom bu ñu gisee nii assemblée ni xam nga tas assemblée nationale. Hmm. mën nañ koo tas amul problème. loolu c'est c'est prérogative président loolu kay. mais nañu xaar ba fañ ko war a tase ñu tas ko. mais li may ragal mooy lan. ah budget 2025 kañ lañ koy voté. mais faaw ñu am assemblée bu bees li fi nekk nii tamit xam nga ni. on peut pas bu doon man bu doon man. Hmm. je vais les mettre devant le fait accompli. sama budget bi may voté. Hmm. d' le PM d' abord. Ousmane na dem def déclaration de politique générale am. bañ ñu koo def mais li ko waral mooy règlement wu ministre bi régir premier ministre moo nekkatul assemblée nationale. non xam nga xam nga lu constitution réew mi. Hmm. nangul naa Ousmane ah, nangul naa ko. Hmm. ni que nañ ko reprendre nangul naa ko. mais dama ni constitution réew mi mooy mooy ndeyu lépp. tey. constitution bi nee na na nga def politique euh, déclaration politique générale. sans délai ah. yow bu fekkente ni dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm. li ngay woote moo ngi ci. man ma jóg dem defi ko après ñu continuer correction yi. c'est possible hein. non mais loolu loolu bu ko bañee mën nañ ko nangu parce que tamit Ousmane Sonko tey bu bu demee assemblée def sa déclaration defu ko dans les règles de parce que loolu amul règlement bu koy régir assemblée nationale la moo tax nga bëgg mu foo xam ne règlement nekku fa pourtant pourtant le fi jógee def na ko mais parce que peut-être kooku dafa respecté wul loi mais Ousmane Sonko li mu tënk wax ko nii dem wax ko de règlement bi nangu naa nangul naa ko ko. dama la ni sànq ci sama euh, entamu propos dama la ni. Hmm. nangu naa mu ni nañ nañu dañu def correction bi. oui mais correction boobu warul mën a tee déclaration bi am xam la moo tax. Hmm. il day actuellement nii dafay gangréné te politique am moom. da nga jàppante def dilatoire. instant toll nii jamono bi ñu nekk ni hmm. bu fekkonte ne def na politique générale am. xoolal les partenaires yi nga xamante ni bii ñoom ñëpp ñoo ngi jël seen i bët xippi ko dugal ci biir réew mi. dañuy bàyyi xel. ci déclaration politique générale boobu pour ñoom ñu préparer mhm. mais tey bu fekkente ni xamuñu euh, premier ministre fan la jëm. Mhm. ci déclaration am. Mhm. mais ñoom ñëpp dañuy taxaw di seetaan parce que c'est pas sur aussi. ok kon donc man su ma doon conseil mm. le PM dama ko naan nañu def la déclaration de politique générale mais aussi nañu préparer wu pour que bu ñu defee suñu budget ba noppi ñu doo ko tas assemblée nationale parce que. quatre-vingt-trois députés moo ngi assemblée nationale pour yow ñoom député yi nekk assemblée nationale yeewi askan wi am na ci quatre-vingt-deux députés te li ma wóor ba wóor mooy y a des députés yoo xamante ni bii tey ils vont voter parce que xam lan ñu gëm. yow askan boo ñu gëm. yow askan boo xam ne après dafa fichier wala jaar ña jaar ña la jaar fële ña la jaar fële. waaw mais attends aussi ah, loolu aussi loolu aussi. Yewwi Askan boobu ngay wax noonu. Hmm. ak lu ñu tasaaroo tasaaroo tasaaroo. Hmm. intérêt réew mi intérêt réew mi pour man duñ ko foowee. <laughs> assemblée bii nga may wax intérêt réew mi xanaa gisoo li fi xew lépp dem ba gendarmerie dafa dugg di jàpp ay nit di génne ne intérêt réew mi loolu intérêt xam nga xam nga benn affaire dafa am. Hmm. dafa am jamono boo xamante ne bii. réew mi moo toll woon foofu. d'accord ñëpp mën nañoo xeex. mais jamono bi ñu toll nii xam nga yaa ngi wax waxu calme sànq. oui yaa du calme loolu mënut a ñàkk. oui yaa a ñàkk foog calme am. Mhm. tey foog calme am parce que gisuma lu tax nit war a mën a xët-xët pour xeex wala pour taal pëna wala pour sànni sànni sànni sànni leneen ak leneen. d'accord jamono bi ñu nekk ni tey. Mhm. jamono dal la. Mhm. jamono xool suñu yoon bu ñuy jaar pour suñu réew soppeeku la. d'accord moo tax ñoom. nangul naa leen ñu tas assemblée nationale. nangul naa leen ko comme l'a dit président Bougane. dafa ne nangul naa leen ko. xam nga dëgg la assemblée bi fi nekk def na ay. turxi doona yu bari ñombe yu bari oui. def na lu bari. mais nag comme dafa am constitution bi lu mu teg ci suñu ndodd. Mhm. loolu ala kulli alin foog ñu dundee ak loolu. d'accord. d' accord Alpha di fàttali ko ne yéen ngi ànd ak Alpha responsable départemental nekk ca Notto Gouye Diama fële ci diwaanu secteur u Tivaouane ak lu ni mel tey Alpha bu ñu doon continuer daanaka ponk bi nga xam ne peut-être ci la ñuy jeexale laataa may ñëw ci euh, na nga na ngeen nekk ci secteur bi ak lu ni mel tey ma ñëw ci magistrature bu Sénégal changement am na ci bërkaati démb président de la république def na ay changement daanaka dans l' ensemble du territoire national juge ak loo mën a doon foo bokk ci bi soppeeku na la gis nañ kañ tey am solo di ci di waxtaanee mooy ñu fi nekkoon ci Dakar doon amal ay décision de justice Maham Diallo procureur de la République Abdou Karim Diop ak euh, ju beneen juge bi tout ça ñu yóbbu leen Tambacounda tey bu doon def benn aperçu global ci changement magistrature yi ñu ne ay sanctions am na ci ak lu ban njàng nga ci am ak ban njàng. président am na ci droit. am na ci droit président am na ci droit. oui parce que aussi am na loo xamante ni bu xewee ci suñu justice. Mm-hmm. ñu teg ci bët. Mm-hmm. mu yàgg lool mm-hmm. mu am ay jafe-jafe yu ñu teg suñu bët mm-hmm. mën na am mm-hmm. moom mu parce que ba tey ba tey Sénégal suñu problème mooy pouvoir yi nga xamante ni bii ñoom ñoo war a gérer seen bopp gérer guñu seen bopp Sénégal dafa am ñetti pouvoir le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire ak le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire ba tey problème bi ci nekk moo ngi ci hmm. te du fi jóge ndëgëm ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy politique ñoo ngi ci biir. kon da nga jàpp ni président dafa génn ci conseil loolu la gëm. génn te moom loolu la wax. loolu la promettre woon. waaw mais la promesse est une dette. waaw change y a y de dernier minute. que les magistrats eux-mêmes le ne pouvaient pas sortir. dafa am ñu wax ne. bëgguñu mu génn am ñu wax ne génn mën nañoo génn. moom nag. comme la promesse est une dette te moom promettroon na ni moom day génn ci conseil supérieur supérieur de la magistrature man li ma gëm li ma gis mooy na fexe ba promesse bi mu defoon ba mu joxe woon mu def ko même ministre de l'intérieur aussi mu génn ci ñu bàyyi leen ñoom ak seen autonomie ñu mën a jël seeni décision man loolu pour man bu amee hmm. li fi am ti chamboulement bi am nii tey kon dootul amati xam nga moo tax dootul amati hmm. ils vont ñoom dinañu jéem a fexe ba képp koo xamante ni bii mën nga benn mbir. ñu teg ko sa loxo. parce que ñoom ñoo gën a xamante ci seen biir. Mhm. les hommes qu'il faut. à la place qu'il faut. te jàpp nga ne ay sanctions daf ci am ak ñi dem Tamba ñett ñi nga xam ne daanaka. ñoo gënoon a fa la sanction hmm. parce que euh, du ma ni sanction la ñoom dañoo am droit pour def ko. def nañu ko. def nañu ko waaw. Ah. <laughs> d' accord alors ba tey gis nañ que ni rapport yi fës na ñu ngi dëgmal peut-être gëm sa bopp yéen amu leen ci bokku leen ci mbiru rapport yi sax dégguñu leen ci. Mhm. ñu ngi dëgmal peut-être ay juridiction ay pro ay procédures yoo xam dina àtte ñi fi nekkoon ci réew mi demee ko ci la loi d'amnistie les mille milliards tout ça gëm sa bopp dafa jàpp tey kan ni est-ce que loolu dañ ko war a rétablir leeral dëgg bi wala jàpp ngeen ko loi d'amnistie bi ko war a approuver dañ ko war a bàyyi mu jàpp. xam nga man amnistie Sénégal dafa man dama ci am problème. ci naka. waaye yow mi nga xamante ni bii wala nit ki nga xamante ni bii ay doomam. Hmm. lakk nañu leen taal leen. Hmm. waa nit kooku nu muy def doom nan lay muñee doomam. c'est une lay muñee doomam. mais doom du këyit doom du fowukaay. <laughs> dëgg doom dafa sax ci xol. Mhm. ñaata nit ñoo dee ci projet bi. bari na de 86 on dirait. mais ñooñu nan nga leen di def dañ koy baale noonu mu sedd noonu non je ne pour. donc loi d'amnistie bi le mouvement gëm sa bopp. Hmm. tey bu ma ci tey bu fekkonte ni mooy yor pouvoir bi danañ leen atte Bougane hmm. bu doon mooy teg tey mooy président Sénégal dinañu leen atte loolu moom on n'en disconvient pas parce que dëgg dafa war a am hmm. dëgg lu aussi dafa war a am hmm. jafe-jafe yi nga xamante ni bii sénégalais yi ñoo ngi koy jooy xoolal ni mu méttee est-ce que nit ñaa ngi xool def xool tuuti weer yooyu ci ginnaaw lan moo leen xew ci réew mi bu ñu amul woon ay kilifa yoo xamante ni bii tey nañu réew mi ci seen loxo kon tey kenn waxatu ko kon lu nekk mën naa am senegal mhm. mais loolu dañ koy seddal warul sedd. la responsabilité de Macky Sall tey lañ ngeen ci wax dañ ko war a àtte wala jàpp ngeen ko il n'a rien fait gëm sa bopp. Macky Sall li pour man dem pour man. pour yow. li nga xamante ni bii tey. Hmm. Macky Sall def na ko. Hmm. def na ko wéy na. ñi nga xamante ni bii nag ñoom ñoo yore woon responsabilité yi. ñi nga xamante ni ñoom la Macky Sall dénkoon responsabilité yi. ah nañu leen saytu. te mooy rapport yi ah. of nag IG of ak Cour des comptes. rapport yi la mu wax. Hmm. nañu ko génnee teg ko ci kaw table bi. d'accord te loolu mooy gis-gisu président Bougane Gueye Dany. ak le mouvement gëm sa bopp. seen gis-gis tey xam nga mooy lan. mooy ni que rapport yooyu ñuy wax ne nañ ko publier waxuñu tax nañ ko publier mais nañ ko yóbbu justice. instruire ko. instruire ko ñu xam les na et les aboutissants. d' accord ah bu fi demee ba nit ñu wax ni Sénégal am na xaalis. te yéen ngeen ni bi ngeen ñëwee fekku leen fi xaalis. te ñi leen di jox xaalis nee nañu réew mi am na xaalis. mais gëstu leen xaalis fu mu nekk. FMI a dit ça la banque mondiale ko wax. nañ ko gestu d' accord d' accord alors loolu am na solo am solo bu baax a baax ba tey waaw alfa Ah, ponk boobu am na solo alors tey bu ñu doon jàll zone des Niayes fa nga bàyyeekoo wax nga dafa am ay problèmes yu fa nekk yu bëree bëri. waaw zone des Niayes. tey ba jëlee benn message booy lancé lan lay nekk. waaw xam nga zone des Niayes aussi mooy suma dëkk. Mhm. ñu dëkk ci benn zone boo xamante ni ci mhm. wàllu légume par exemple. Mhm. Hmm? mën na approvisionner Sénégal. mais préalable yi nga xamante ni bii war nañ koo teg. préalable yooyu la ñu tegul. Ah, ci naka xam nga tey bu fekkente ni yow da ngay jël lem banque leb ay million jënd say matériel yëpp ba mu mat. Mhm. ah mhm. nga ngay bay. nga am li ñuy wax carotte. Euh, am pagaay ci biir réew mi. nga am li ñuy wax pomme de terre am ci biir réew mi. ay camion di jóge Maroc. di ñëw ci biir réew mi di indi même légumes yi. Mhm. même produit bi. indi ko ci biir réew mi. di concurrencer ak say doomi réew te nga nga ni yow da nga bëgg fexe sa réew mu autonome wala nga bëgg sa doomi réew dañoo bëgg ñu liggéey loolu c'est un problème kon tey encadrement bi nga xamante ni moom moo war ci baykat yi hmm. mooy fexe les chambres froides yi nga xamante ni bi dañoo ñëw ba digg jam ñaajo def ko fa hmm. amalu ñu benn njariñ parce que baykat yi ñoo ko soxla hmm. nañ ko yóbbul baykat yi fa ñu ne lan mooy seen i manquement zone des Niayes véritablement lan mooy manquement. mooy li ma lay yaa ngi prôné li ñu duppee consommer mooy li lay moom laa lay wax. Mhm. ma ne la tey li nga xamante ne bii ñun ñoo ngi koy bay ci suñu gox. Eh. bu fekkonte ni tey. Hmm. am nañu ay chambre eh. de conservation. yoo xamante ne bii mën nañ koo mën nañ ay chambre froide ak chambre de conservation yoo xamante ne bii mën nañ ko faa def. Hmm. kon dama la ñu douze sur douze mois Sénégal dina lekk produit yoo xamante ci biir réew mi lay jógee. wala ay unité de transformation moom laa la indiloon sànq man la la formation des jeunes parce que tey li nga xamante ne bii ñoo ngi koy jël di ko tuur mën nañ ko transformer mais yooyu tey politique Sénégal pour man tey dañoo war a xool mbay mi jafe-jafe bi ci nekk. kon te produit yi day ñor foofu dafa yàqu. mais day tuur dañ koy tuur. ok tout récemment actuellement nii ma lay wax ak yow nii euh, camion camion marocain yi ñoo ngi ñëw indi ay supame indi ay carottes tey loo xamante ne bii ñoo ngi koy bay ci biir réew mi. loolu tey pour man politique bi fi nekk tey pour pour man mooy ni que ñoom nañu téye li nga xamante ne bii moo ngi jóge ci bitim réew te li nga xamante ne moo ngi ci réew mi ñu consommé bu demee nag ba ñu amatuñu xam ne jeex na en ce moment là dem ñu indiwaat leneen mais ndëgëm ñoo koy bay ngi am ci biir réew mi vraiment waratul dara warul dugg ci biir réew mi. Bougane am na ci politique mais Bougane day ñaay presque yi nga xamante ni moo fi jaar yëpp Bougane moo ci def loo xamante ni kenn defu ko. dugg ci biir tool yi. du benn yoon du ñaari yoon. dugg ci biir tool yi xool jafe-jafe ya fa nekk. ba pare wax askan wi lii tax jafe-jafe yooyu ñu jóge fi. d'accord te pouvoir central moo ko fi mën a jëlee. kon donc lu ñuy ñaan. Mhm. Euh, suñu euh, gouvernants yu bees yi. Mhm. mooy ni que la zone de Niayes poumon la boo xamante ni bii poumon bu am solo ci réew mi. d'accord te loo xamante ni bii lépp loo xamante ni bii ñoo ngi koy wax ci consommer local nañ commencé ci zone des Niayes. dëgg la xam nga ñoo ngi wax ceeb ñoo ngi wax nangam ak nangam ak mais li ma gëm ba gëm mooy zone des Niayes mën na ko fournir Sénégal. parce que tey tey tey boo demee noto ba ma lay wax na le hmm. la sous-région. Hmm. dëkk boo dem ci biir sous-région boo demee noto boo fa bëggee yóbbante nga yóbbante ko lan la ñuy wut si légume la ñuy wut si. Hmm. fii la ñu koy yebee di yóbbu seen réew. kon am na benn genre encadrement boo xamante ne bii bu amee dootuñu yóbbul lenn bitim réew. d' accord alors ponk boobu am na solo je pense que état bi na ko dégg am taxawaay bu am solo dernière question bi peut en deux minutes tey gis nañ que ni presse Sénégal. suba nee dañ def journée sans presse parce que li état di teg dafa métti. waaw loolu loolu loolu dama ci ànd. ban taxawaay nga ci am. loolu dama ci ànd. parce que hmm. tey presse moo leen moo leen a egg fi ñu egg tey. dëgg la ah. kon jàpp nañ ci taxu pa tax tax tax àgg mais jàpp nañ ci quand même. non presse mooy troisième pouvoir ma quatrième tey réew mi kenn mënu cee def loo xamante presse bokk ci. d'accord kon presse bi xam nga xam nga tey dafa am lu am solo lu am. gis nga sa doomi réew. Hmm. sa doomi réew. Hmm. boo leen dooleelul. Hmm. waroo leen néewal doole. lan ngay woowee néewal doole. tax gis nga néewal doole bi xam nga mooy lan. mooy jafe-jafe yi nga xamante ne bii dañoo ko bëgg a teg ci presse bi. presse bi nañu waxtaan ak ñoom. damay ñaan le PM. na woo presse bi. patron de presse yi. na leen woo toog ak ñoom tête à tête. problème dëgg-dëgg ñu xam lan la xam lan moo koy saafara parce que xool da dugg ci benn. benn benn benn organe de presse. mu employé le plus de cent personnes. wala cent cinquante personnes. c'est mais ñooñu tey boo leen yóbbee chômage chômage kañ ak njaboot bi nekk seen ginnaaw kañ nga leen di lijjanti. c'est très important balaa ñoo def yenn ñu xalaat ko ba noppi. Mm-hmm. moo tax ma ni. Mm-hmm. le PM ak le président de la République ñoo ngi leen di ñaan pouvoir bi nañu jéem a fexe déggoo. les patrons de presse ñu xool li nga xamante ni bii mënut a ñàkk mhm. ñu jàppale leen ci d'accord mais bu ñu leen naree teg yenn yi mhm. bu boobaa problème la ñuy indil ci suñu ah, réew te xam nañu prince bi de ah, am nag bu ñu waxantee dëgg ñoo ko Bougane nag ci mel ñoo ko teg seen bopp ñoo fi toog ak ci bëri fay ñu impôt tey ñu gàll leen ko non président de xom presse ñu ci ëppale ay 33 xom bu leen ko boole ñoom ñëpp plus de 30 milliards waaw ay ah, yow plus de 30 milliards kii ñoo koy toppee 2 milliards yow ki ñuy toppee 30 milliards kay li jënd ko mu ñëw du <laughs> <laughs> dëgg alors Alma mu nekkoon mbégte je pense que ponk ah? mu am solo ma doon ànd ak yow bàyyi la nga merci beaucoup maa ngi lay. wala nga am looy bëri xam dafa mel pare. non non non ah, <laughs> maa ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Alma waaw maa ngi rafetlu ko aussi euh, DKR 221. jërëjëf. Euh, xëy na bii mooy sama première. Euh, incha allah dañ ko baamtuwaat fois ma ñëw fii. incha allah mais maa ngi ñaan yàlla aussi yàlla dimbali leen. ba mu nekk benn groupe bu bu rëy. groupe bu màgg bu boo xamante ne bii wax dëgg yàlla lépp lu ñuy xool ci presse. ñu gis ko ci. loolu ñoo ngeen koy ñaanal. di gërëm ñi nga xamante ni bii fa laa jógee muy sama commune. Mm-hmm. Notto Gouye Diama. Mm-hmm. Eh, di leen ñaanal yàlla aussi jafe-jafe yi nga xamante ni bii yëpp moo ngi ci mbay mi. Mm-hmm. yàlla dimbali ñu. ba ba ñu saafara ko. mën naa nekk. te di wax ne régime bi fi nekk régime eh, président Diomaye ñu koy wax ne rek na bàyyi xel la zone des Niayes. parce que zone des Niayes aussi mooy benn. Euh, poumon boo xamante ni bii tey ci biir réew mi. Mhm. Euh, lépp loo ci yaakaar ci mbirum légumes ak consort mën na faa génn. Mhm. te bu ñu leen dooleelee rek. gëm naa ne Sénégal dootul jéggaane lu jëm ci côté boobu. te mbay mi dafa nekk loo xamante ni bii dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm euh, Notoogu Jama di gërëm dëkk bi ma jógee. muy Daaru mm-hmm. Alpha. Mm-hmm. muy euh, may njabootu sëriñ Alpha Thiambane. Euh, di ko ñaanal aussi yàlla seral ay yaxam. Mm-hmm. te dëkk bi yàlla yokk ci naataange. jërëjëf. jërëjëf voilà ñu lay sant nañ tamit Serigne Alpha Mbeng di responsable politique gëm sa bopp bàyyeekoo diwaan Notoogu Jama ñu ko sant bu baax a baax di ko gërëm teewaay bi ci Dakar 221 mu nekkoon ponk bu am solo wax dëgg yàlla le débat était tellement rythmé dañ ko gën a baamtuwaat incha allah tamit du leen di jox dégg daje ba ne incha allah jëf jàmm ak jàmm